ay way na xol yi di feex da nga yene sa morom jam bo beugé sa xol noppalu waye bo woté na gëm sa bop bo woyé ko sa parti da nga ko war gëm sa bop te jéem liggéey pour mëna nekk dara ci dëkk bi waye ay gor nekk ci dëkk bi nit ñi bëgg leen te yalla tax nga ne dé du fi am ba mu jaral la nga dem ba ka psychiatrique bu ciara recruter fa ay chroniqueur tegal leen nal leen dé la ma sagal diw woo ki nga xamante ne benn femme ca période aji saar ba ñu nekk ne yaa ngi wëlbatiku yow yaa ngi nekk ci suuf di def say kàmb ay waay yàlla ay waay sawaay noppalul balaa may dee ngeen di woote naan moralité waaye yéen xanaa lii xew bu xew bu mujj bële ci ay jamono xaa dañ ko fàtte que doon liggéeyee ca bërëb ba mu nekk xaw ma lan di fa liggéeyee xaw ma présentatrice nga jël ko ñu tegal la bal po penalty bu baax nga dóor ko mu dugg ah loolu fii la ñu fekk loolu débat wuñ ko de. kon yéen moralité génn leen ci waaye seen TV ci li ngeen nekk nii génn leen ci baaxul de baaxul. Serigne Saliou Gueye contre tous <laughs> mais gars yi xam-xam vraiment xam-xam du fen quoi xam-xam wallahi du fen moo tax lu ko waaye jëndee rek jar na ko démb. Sen TV dañu def benn émission boo xamante ni dañu ñëw rien que pour diaboliser le travail de Ousmane Sonko mais heureusement que Serigne Saliou Gueye était là maanaam seen émission bi dañu invité ay éléments yoo xamante ni duñ sax ay chroniqueurs mais des animateurs de télévision ñu ñëw di wax n'importe quoi. mais nag Serigne Saliou Gueye mayu leen ko lépp loo xamante ni jéem nañ ko wax pour manipuler rek Serigne Saliou taakale leen en plus réexplique ko ba mu clair ci dans tous les têtes moo tax ma ni xam-xam lu ko waaye jëndee jar na ko. en plus de ça am na ñoo xamante ni dañu pensé que ni Serigne Saliou Gueye dafa war a quitter fi nga xam mooy Sen TV non non les gars bu mu yombee noonu Serigne Saliou il faut que mu reste Sen pour lii nii. parce que bu fa jugee da leen may opportunité boo xamante ni gars yi dañuy xaabaabal di wax lu leen neex alors que fi ak mi ngi fa lu ñu wax loo xamante ni teguwul ci yoon Serigne Saliou teggi ko benn par benn mention spéciale a Serigne Saliou Gueye ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi lay soutenir nii rek rek amul leneen kenn du salteel suñu liggéey franchement la neexul ba neexul mais Serigne Saliou Gueye yow faaw ñu wax ak yow quoi parce que Sen TV bi bari na ñoo xam bu ñu seetaan émission bu ñàkk fay fayda bi bëri na ñoo xam buñ koy seetaan ko si yow sa jëmm ji moo tax. te man bii fii lii dafa may naqari quoi xam-xam bi la yàlla may fasaaxa bi la yàlla may ak bëgg réew mi ak xool loo xam si luy jariñ réew mi la nga di ko wax sans diaboliser sans dara dëggu teg ci di journaliste bu mag yor lu toll ni journal ah. di nungoo toog soit soi-disant góor jigéen ñi dof yi kalaasu kadeer géeg ay Adama Fall dof yi nga xam ne si nii sénégalais dañ leen a multiplier par zéro ak doomu xaraam ji ay booy amet ndooy yi nii ñu lay jël seen TV jël la di la jël di la dóor ci kaw ñii nii quoi nga xam si plateau bi ñu fi toog ñëpp amul ko ci am laalo compétence amu ci ay naar fekk ay fenkat ñoo xam ne si nii xamuñu tus nga toog ci seen biir nga xam si boroomu lëndëm maanaam bu duggee ci leer da koy nëbb ñii boo toogee ñoom sa xam-xam bi nga war a génn sax doo ko génn ndax da nga fay mujj nekk di werante ñoom dèjà maa ngi gis booy am benn doy di wax ba di la draper di la manquer de respect nit yu toll foofu man dama jàpp que ni waratoo nungu sax di toog ak ñoom ndax sa xam-xam la jël di ko suul ñii ay naar fekk lan seen TV la ko commencé ci kaw ba ci suuf ay naar fekk lan diaboliser moo leen tax a jóg ak yàqal. bii Vision. Euh, salaamaaleykum salaamaaleykum dafa Sonko bi la maa ngi nii di soog yeewu yem day ci Ameth Ndoye góor jigéen bi <clears throat> di nuyu diaspora bi patriote yi monde entier maa ngi di nuyu yéen ñëpp Ameth Ndoye <clears throat> yow góor jigéen nga te góor jigéen sa tolérant ici au Sénégal maanaam góor jigéen bu ñu ko tolérant wul woon fii Sénégal ba tey rey nañ la wala doo toog ci télé plateau yi di taltali di wax yow góor jigéen nga Serigne Saliou nee na la ndax vidéo bi nga xamante ne nii yaa ngi ci biir góor jigéen ñi ndax yow la wala du yow ngay layam-layamee góor jigéen nag sëgam moo dem ba sañ a taxaw am sañ-sañu di wax fii Sénégal di appliquer di dëggal boppam yow say vidéo sénégalais yëpp seetaan ko xam ne amee ndooy mii di dox nii moo nekk ci biir góor jigéen ñi di sibile di leen jàppale seen journée bi yow ñu bàyyi la fi nga fi dund ba léegi kenn rayu la kenn prisonnier wu la kenn defu la dara nga a xam ne sa baay Ousmane Sonko li mu wax dëgg la góor jigéen c'est talorant dafa talorant dañ ko taloré fii fii fii gis nga yow ameen doo yow muy man di yow di keneen boo génnee ku dóor ndax góor jigéen dugg kaso mais bis boo defee acte contre nature nga kattanteeg sa moroomu góor ñu katt sa cott ndey si kaso bi. sëñ bi di ngeen di ngeen di yow ameen ndooy wallahi man su ma gisee ku ku ku ku ku faral Sonko wala Jomaay wala ku bokk si Pastef wala koo xamante ne day xeexal projet bi toog sa wet nii toog man ñi may gis ñu toog sa wet nii rek dinaa dañuy delloo tey yow baat man ñooñu dama leen di mere quoi. man waxuma la man man man gis la rek ubbi sa dëjëw ndey laay def man. man dama lay gis rek lekk sa jobbu ndey ba mu ñor xomb yàbbi ko doomu cottu ndeyam bi yow ngay góor jigéen sa yaay di góor jigéen sa baay di góor jigéen yow ngay damm loxo bu toj sa cottu ndey yow saa sañ taxaw am looy wax fii si réew mi nii ñu lay continuer di la seetaan nii rek allez-y nañ dem allez nañ dem tànk si suuf jaan si suuf yàgg-yàgg daje man ñëw naa ba sébi xutaan di la wër yow am leen dooy yow maa ngi lay wër nag yow maa ngi lay wër maa ngi lay wër te damay ñaan yàlla saa su ne su jullee damay ñaan yàlla dox ba dajeeg yow suñu bët ñeent àndal ak garde corps àndal ak ay mbër àndal ak ay dëmm àndal ak ay nuuxóor du tere ma toj sa cottu ndey jour boobu ngay mujjee wax si Ousmane Sonko. ci Ameth Ndoye Ameth Ndoye nee na yaa ji dana ko combat bi bu dee kenn newul sa ginnaaw doxalal li nga ci am ndam waaw léegi man est-ce que yow leeral nga sa yaay combat bi combat bi. pour défendre l'intérêt des Sénégalais la wala combat bi contre Sonko la parce que bizarrement bi Macky Sall demee yow la sa combat fis te Sonko rek ngay tiire man boo tëddee woon njaxanaay di tiire di tiire garaawul de wala nga def ko antérieurement mais yow bi affaire yi di tar Sénégal y avait beaucoup de choses à dire kenn gisu bi Macky Sall di nekk fi di jaay doole y avait beaucoup de choses à xam nga la moo ñàkkoon mais duñu wax mais comme par na Ahmed naa wax leen nit ku yalla def si nit parce que ñun nous majorité majoritaire Sonko la yalla def si xol nit ñi mënu ko Ahmed Moustapha Diakhaté mënu ko Aïssatou Diop Fall mënu ko nee la yene yi aussi yene yi ku yalla samp boko ko sa xolay dé day mel ni nga nek ci Sénégal ah tarifa mourid bi la déranger sa bu màggal jotté nga xamni yow mi yaa ngi wax loo xam ko daan auto yi dañ fess del dem ko auto manké nit ñi di pass di dem sa xol di gëna dé ngay dox mbeddu nakar yi xamni li sa jubaa ko waral ngay dé ay doxot di la dé so soo bañee malik ga mu jot gars yi di dem mairie sanca bu mu weex njëkk jaay fees dal mairie na jokkul mairie naa ñëpp dem isaan fi nga xam ne li àlaa jamaa la nga ko waral doxat di la ree tu vois soo bañee bàyyi kaw la kazalika donc yenn yi boo ko bañee sax mën ngaa bañ mais def ko discrètement sinon su bopp nga yokk noonu amet xeex bi doo si jëlee ndam amet xeex bi doo si jëlee ndam kii yoroon président armée gi lépp lañu daan yow nga ñëw benn chaîne kese nga yor ak toog da ngay romb ñu lay jéppi bu yokk si bopp noonu ah sa yaay sa yaay bénir na la su ma la warul woon bénir de comme bi barki alxuraanul karim do leen ko gëj barki alxuraanul karim do leen si jëlee ndam ay non kasse ngeen ci am waaw ku bañ Sonko fi ay doxotalay rek dañuy doxala doxala doxal bu mu saf-saf waaw 5 ans yi da ngeen koy cons dix ans yi ñëwaat ngeen cons xam nga kañ la affaire bi di jeex. ñoy ñoy ñooy signé ben arrestation du ñun ñoy ñoy condamné ci que ce soit la justice est là pour faire ce travail nañ leen bàyyi ñu liggéey seen liggéey nañ yombalal président Ousmane euh, euh, président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko liggéey bi nañu yem fu ñu wara a yem ça c'est un appel bu may lancer à l'endroit de tous les patriotes na nga xam fu ñuy yem deuxièmement may wax ni ceux qui qui sont à la télé di toog di fan, di wax lu leen neex à l'endroit des autorités nañu xam ne képp ku fi offensé chef de l'État képp ku fi wax loo warta wax yoon dina dal sa kaw du ñun ak yow duñ ci mbedd mi la ñuy xeexee duñ la répondre sur quoi que ce soit justice amna, dina def lu mu wara def parce que ce que je vois actuellement dans ce pays-là, c'est catastrophique, c'est scandaleux. Tu vois des gens, yo xamné, yalla la série ni tok bay am bay am temps d'antenne qui télé yi. Mais malheureusement nous lañuy jox micro yi. Les médias nous wax ci les projets, dañu wax ci fonctionnement wu état, dañu wax ci réalisation yi état di def. Non, duñ ko def. seen tendante ak ñu jox ces vauriens là c'est clochards là comme ay cadère comme tant d'autres yu toog à la télé di fen di wax lu xam ne xamuñu lu ñuy wax moo leen gënal patriote yi nuyu naa leen bu baax a baax weekend bi moom dama naroon noppali ko naroon dugal vidéo vidéo yi ma jotoon enregistré rek laa naroon dugal mais franchement dama bëggoon rek wax ak suñu grand frère muy Serigne Saliou Gueye bu ñu waxante dëgg rek grand yow ak Pape Alé ak yeneen ñeneen ñi mel yow yéen bilaay li ngeen doon liggéey liggéey ngeen koo pare li ngeen doon leeral askan wi ba ubbi bi seeni bët métti woon na loolu def ngeen koo pare ba kaso fekk leen ci xeex ngeen a xeex ba egg fi ngeen egg si li nga def ñëpp ku gis ñëpp la xam ñëpp la bëgg ku la gis xam ni sérieux ak xam-xam moo nekk ci yow sa kanam koo gis sérieux lay njëkk a gis ak xam-xam moo nekk ci yow débat yi dañ daan bëri ay nit ñu am xam-xam ñëw nga tenir leen tête yóbbu leen ardo ñoom ñëpp ñu ñëpp si xam nañ ko mais instant biñ toll nii dama bëgg gis nga plateau boobu noonu nekk seen TV ngay toog depuis un moment da ngay gis ni man dama ko dan seetaan mais yalla xamni ne damay cliquer zappé dem jappi Seneweb dem jappi Seneweb gis ni débat. Naby Vision. foofu noonu du sa place ñooñu ñu lay ñu lay booleel du sa place ñom def nañ ni politique waxu dof la sos jaxase dàggasante émission bi dang koy sétane ba mu jeex do ci jëlee dara émission dang koy sétane ba mu jeex dem dama sétane met Moussa Diop émission bi nga jëlee ci lu bari waxtan wi am solo xam-xam ñepp diko sétane seetaan Seneweb mais foofu noonu du sa place Pape Alé Niang kenn sax mosu ko gis teleem la yoroon sitam di dóor muy daanu kenn mosu ko gis yenn débat yenn yenn débat yi waxuma ni bu njëkk la nga doon def ak ñañ doon invité ay nit yu vraiment yu am valeur lañ daan invité mais instant ni faut que nous plateau bi fi nga toog xoolal ay kadeera fa nekk ay kan may beneen gaayan bi doon jooy bokk affaire ñan la invité ñan ñoo leen foofu lan nga fa mun a wax ba mu dugg ci ñooñu franchement sa yor yor. journal wutal ko sit wutal ko Yoor Yoor yi dafa jot ngay invité di taxaw comme ñëpp indi ay nit ñu am valeur débat yi nekk débat du facture Sénégal a ngi toj état baa ngi def lu am solo mais waxu bas étage yi ñu bëgg yi ñu bëgg dugal nga xam te ni yow boo toggee seen émission yow boo toggee ci émission bi da ngay valoriser émission bi da nga koy may benn gëdd gis boo fa nekk loon ñoom i kese lay nekk mais boo nekkee ci débat bi yow da nga koy may niveau te niveau boobu waroo leen ko may ba ñuy jàllale seen ay message sa yoor yoor bi tegal ñu yoor yoor TV di ñu defal ay émission de haute facture di invité ay nit ci lu jëm ci économie ci lu jëm ci santé ci lu jëm ci agriculture ay débat de haut niveau nit ñi di la suivre foofu noonu du sa place boo xamul sa bopp dëgg-dëgg ñun xam nañ la xam nañ lan nga liggéey ci dëkk bi boobaak léegi xeex bi li nga ci def débat yi nga ci indi ñun xam nañ ko foofu du sa place am na ñoo xam te ne yaakaar nañ ni politique waxu guerrier la waxu comme comme dàggasante waxu jigéen waxu sos ñoom ci loolu lañ nekk sos nañu ba perte nguur gi sos nañoo sos fenn jaxase saaga wax wax ju ñaaw ba perte nguur gi ci loolu lañ bëgg a nekk te ñun bu yow bu leen may cest à am na gis nga boo woowee ay dof daje am na benn genre nit yoo xam ne ay dof bu ñu dajee am na genre nit yoo xam ne bu nekk nekkee dof bi dof bii rek mën na tax nit ñi xool loolu maanaam yow nekk gi nga fa nekk noonu da ngay valoriser émission émission boobu amatul valeur donc dañ lay ñaan bu ñu wootee te émission nga xool ñan lañu invité nga xool bu baax a baax invité yi ñan la balaa ngay dem parce que ñooñu instant yi doo seen morom ñu ñu lay booleel. sérieusement xoolal bu baax sa parcours ci presse bi xoolal bu baax sa niveau ñu doo seen morom vraiment te lii nii patriote yu bëree bëri ñu ngi naqarlu fan yi émission boobu di nga fay teew bugguñu ko ndax da bokk ci.